voilà salaamaaleykum yéen mbokku internet yi ak ñi nga xamante ni yéenay seetaan lii di réew mi TV dalee nag jàmm ñu indi leen émission bu bees boo xamante ni moom mooy xool lépp loo xamante ni askan wi dinañ ko soxla lu ko dalee ci économie santé bien-être fait divers lépp loo xamante ne daal ci société bi la ñu andi leen ko ci émission bu bees ci ay thèmes ak invité yoo xamante ni exceptionnel la euh, fii ci réew Rewmi TV kon xaar leen ko banaa yàgg émission bii di biir réew mi fii ci Rewmi TV